salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jàngeen jëf si ànd bi ak seen télévision TV Saloum dal leen ak jàmm ñu jukki leen xabaari marax yi ci kàllaamay Kocc Barma ah, dañu koy door rek li lee di campagne yu njaayum gerte gi nga xamante ni nag bu ñu sukkandiku ci ñu dénk wàllu woo ñoo xam le ni jamono ji dafa taga témbe ba tey seen i kàddu ñoo ngi xam le ni lenn waralut loolee taga témbe gi mu di campagne bi nga xam ne moom la ñu jugee moo doon nekkoon ah, fal juróomeelu njiitu réew bu ah, Sénégal ba tey ci leneen ci lu soxal fal njiitu réew moomee nag ki nga xam ne moo di maire bu Kaolack bokkoon ci ñi nga xam ne nag matoon nañ fukk ak juróom-ñeent ñu leen xëccoo réew Sénégal moom daan nañ toog ci fukkeelu place ba génn di jaajëfal bu baax a baax li nga xam ne ñoo ko a wotal waaye di waxaat li nga xam ne nag moo di yëg-yëgam ci réew Sénégal waaye tamit di talal loxo ci lii di juróomeelu président Sénégal Diomaye Faye moom li nag li xam le ni noppi na ngir ànd ak moom rawatina nag ànd moom ci liggéey dëkkum boose kumba jigéen mbokk yi li leen mooy tënkum xibaar yi atal faram-fàcce gi ginnaaw bàkk bi lay doon yaa jëf mbokk yi dañu koy dooree ki nga xam te ni nag moo di Serigne Mboup maire bu Kaolack bokkoon ci fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñu doon xëccoo li léegi di réew ba Sénégal moom nag nag daal jël fukkeelu place ba moom Serigne Mboup ma ngay jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ko jot a woteel waaye ma ngay xam ne noppi na ngir ànd ak kile di Bassirou yi fay mi nga xam ne nag moo nekk juróomeelu président de la République bu Sénégal moom Serigne Mboup ma ngay xam ne noppi na ànd ak moom waaye tamit rawatina Candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, les maires de la commune de calor trace son bilan au sorti de ce rendez-vous. Ainsi, il n'a pas manqué de signaler la posture positive de ce bilan et compte travailler avec l'actuel gouvernement pour un Sénégal meilleur. Donc, euh, nous avons été choisis parmi 300 candidatures. Euh, et nous avons réussi le test de, parrainage pour nous retrouver parmi les, 18, les 19 candidats euh, au final. Donc nous nous sommes classés euh, dixième au plan national, troisième à Touba, quatrième à, à Kaolac. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce vote de, de, l'élection 2024 est un vote référendaire. et c'est le résultat du combat entre deux partis politiques qui sont euh, le Benno Yakar et le, et le PASTEF. Oui, euh, aujourd'hui, euh, nous, félicitons d'abord le président Bassirou Diomaye Faye et la coalition président Diomaye et nous nous réjouissons pleinement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons sans réserve dire que si nous n'étions pas candidats à ces élections, nous irions à cette coalition puisque nous avons les mêmes idéaux. Donc nous nous engageons sans réserve euh, à leur côté euh, pour travailler pour le développement de Kaolack et du Sénégal en, général. En effet, le maire soucieux du développement de sa commune décide de restituer des terres de Sixin une villa qui se trouve dans le nord-ouest de Kaolac. Sachant que ces derniers furent récupérés inégalement, il s'engage à traîner l'affaire à la justice. Kaolack, la commune de Kaolack plus précisément, est, est tenue en otage par des politiciens locaux qui spolie les terres, le foncier de Kaolack. Donc, euh, ce n'est pas un dossier que nous, nous avons créé. Et ça, c'est important de le rappeler. Nous l'avons hérité de Madame le maire Maria Massar, qui avait intenté des actions en justice pour aujourd'hui récupérer des biens de la commune de Kaolack, à savoir le marché de Medina Bay et aussi euh, le, foncier, que, le, les, terres de Sing Sing, voilà, qui ont été hypothéquées à mesure euh, de milliards. Donc euh, aujourd'hui, euh, Alhamdoulilah, nous avons été, le maire a été entendu il y a trois jours par le juge sur ses plaintes. Et comme on a dit, nous le, Sénégal est en train de se battre pour une bonne gouvernance. Le Sénégal est en train de se battre pour rétablir ses droits. Le Sénégal est en train de se battre pour la justice. Et nous, ne compterons pas la commune de Kaolack, nous ne compterons pas faire moins. Nous allons nous battre aujourd'hui pour restituer tous ces biens euh, euh, à la commune qui est, propriétaire justement de, ces biens. Tout de même, au cours de cette rencontre, Serine Bouffe signale que le maire est le premier magistrat de la ville qui mérite d'être respecté. Pour rappel, il a distribué des lots de kits alimentaires au personnel municipal, s'élevant à une somme de 26 millions de francs CFA. ñu toll ci cëppaandawal euh, lile di koor gi nag ñu toll nag ci li nga xam ne nag moo di waajtaayu weeru korité korité nag nekk xew-xew bi nga xamante ni nag soxna yi dañ ciy faral di solo ko summeeku lu ne mel nag tax ca marché central bu Kaolack ñoom ñi ña nga fa nag ngir rek waajal seen bopp bokk na ci xeetu tus yi nga xam ne nag jot naa génn foofe mu di lafaya ak li nga xam ne nag moo di borode ak it jasneer ku nekk ci ñoom ak bala neex dañ ci ànd ak kile di ay de moo leen seeti woon daanaka li des ci lii di korité amatatul fukki fan li lay di waajtaay bu moom ma ngay dox bu baax foofee ci marché central bu Kaolack ci bërëbu jënd ak jaay bi nag ñi lay di jigéen ñi ñu ngi wutali bërëbu jaayekaayu tissu yi ku nekk rek ak la ngay wër loolee tax nag ñi nga xam ni ñoom ñoo cee yëngu jamono ji ñu ngay gis seen bopp. yaa ñi si gis tan boo seetloo ren dafa mel ni euh, nit ñi dentelle lañ jël ak euh, lafia ak plissé bi boo seetloo korité dafa doon événement xele. avant biir mais fi mu ne nii ñaa ngi commencé di gis seen bopp di fortaatu ndànk-ndànk tendance bi aussi xam nga tiisi góor dafa ak tiisi jigéen la ñuy jaay lépp lu nit di sol rek dañ koy jaay. ren jile nag la ñu gën a taamu bokk na ci lafaya pirxe ak li nga xamee ni moom moo di soie plissé nag ak li nga xamee ni moom moo di ay basin. dentelle ak soie plissé bi ren daal loolu mooy tendance bi ak mbasin ris tuuti rek. dentelle bi ñu koy jaayee ñett téeméer te boo seetlu lafia bi dañuy jaay lafia cristal 5 mètres 15000 euh, au lieu de 25000 dañ ko jaay 15000 waaw am na 12500 sax am na 20000 euh, cocaïne bi ñu ngi koy jaayee 35 mi ngi jar 35000 mais ñun dañ koy jaayee 25000. mais pour le moment daal li gën a nekk tendance moom mooy nafaya perlas bi ñu naan ko digital am na simple aussi am na boo xam ne jipir la àndal double finition am na ay marigay am na val aja am na bassin jesner lépp lu ñuy kii daal fi ne nii loo ci soxla rek bi ngi ci kër sëñ lu waaye am rek boo ñëwee danga am loo yóbbaale. ren ji la nag kenn bëggul fet bi daal di koy bett loole tax nag naam jamono ji metti na waaye ku nekk rek ak ruq ba nga jaar ngir mën a bégal sa njaboot moo xam ca jaaykatu si ba nga jëm wala sax ca ñu yëngu ci njaayum dall jëf Aïda Camara Badiane bu ñu jógee Euh, di campagne wu njaayum gerte gi ba sax ñu nekk ca lële di cëppaa ndaw la lu mel nag tax ñuy yëngu ci bànqaas boobu le di xam ne ñu gisuñu ci seen bopp rawatina nag li nga xam ne moom la ñu génn ca jàpp nañu it moo ko tagate mbir mu di campagne bi nga xam ne moom la ñu jugee ci noonu it ñoom ñi nga xam ne nag ñoo siq wàll boobu ñu ngay sàkku nag ci nguuru Sénégal mu bàyyiwaat bu baax loolu li nga xam ne nag moo di béykat yi rawatina nag bu ñu tollee ci li léegi di njaayum gerte gi nga xam ne bokk na ci bànqaas yi suqali ab réew dañ ci ànd ak reportage bu kaw Seck. jaayam gerte moom daanaka mun nañu wax ne amatul file li ko waral. mooy jaaykat yi ñoom ñi nga xam le ni campagne bi ci boppam moo nekk ci njeextalam te sax li ko gën a yokk mooy campagne électorale bi nga xamante ni dugg na ci diggante bi tax ba nga xamante ni activités yi dara doxatuñ chinois yi ci boppam jëndatuñu gerte ni ni mel tax ba ñoom ñi leen ñu fekk leen ñu teglante seeni tànk toog par group di amal seeni waxtaan campagne bi moom ñu ngi ci njeexantalam njaay mi nag moom mënta arrêté waaye campagne moom lu ñuy waxtu ñu ne campagne moom arrêté na fi mu ne daanaka ñu ngi ci njeexantal campagne bi daanaka dafa taxaw parce que li waral taxaw bañ commencé affaire wata beeg léegi jaayuñ jënduj parce que boo indee bagage Chinois yi doon jënd dañoo arrêté ngir problème mu wata beeg yooyu te fi mu ne nii ci boppam commencé guñ dara taxawagul man moo tax njënd mi arrêté waaye nag ñu ngi doon ñu ngi doon jaay bi campagne bi ci gannaaw fan ci gannaaw campagne moo leen wax dëgg yàlla ci kanam ci ginnaaw doxoon na daal waaye dafa teel a taxaw dafa teel a taxaw loolu daal moo ñu daal fu mu nekk nii xaw ma nag gerte gi dafa jeex xaw ma dañ ko arrêté gum daal waaw ndax ñun fii nii gerte kese lañ fii liggéey dugub li fi ñëw bëriwul bu dee na sax seeni place yi mën nañu nemmeeku ay bagages yi nga xamante ni jot nañ ko fi taxawal mu jëm ci ay sàkkoy gerte ak mboq waaye tamit ak yeneen ñoom ñi le ñu ngi xam le ni tekkiwul benn yoon ne am nañu file gerte tax ba nga xamante ni ñu ngi xam le ni prix bi moom moo ngi toll ci 350 waaye tamit taxul njaay mu yomb benn yoon jiwu te jiwu ubbeegul pour jënd jiwu moo tax fi mu ne nii xott bi moom mu ngi doon di ay 300 yooyu 25 300 yooyu fi mu bu ñëwee dañ naan la ay trois a ñuy bañ maa ngi fay ñaari saako gerte yoo xam ne ba war na fi am tey bële war na fi am tey ña ñeenti fan mënuma ko jaay parce que prix yi may fay ak borom mën a jaay bokkuñ fi mu ne dara doxul parce que kemb gi ci boppam jaay ko yombut laata ñuy fegal seen kàddu ñoom ñi lee ñoo ngi sàkku ci gouvernement bu bees bi lee nga xamante ni Bassirou Diomaye Faye moo koy diriger mu daal di jël ay matukaay yu mat sakk jëmale si nawet bi nga xamante nii moo ngi di ñëw waaye tamit ak campagne bi nga xamante ni war naa ubbi déwén ndax ku bàyyi ba pare dinga jéem a jaay waaye tamit jéem koo régler ba nga xamante ni baykat yi dootuñu am benn jafe-jafe jëmale si seen ab liggéey barke ba jib na ñaareelu pàccum xabaar yi di xabaar yi bitim réew dañ ci ànd ak Aïda Camara Badiane mu dem ak ñun foofee nga xamante nag moo di Mali ak Arabie Saoudite lu ëpp juróom-ñett fukk ci ay parti politique naka noonu ay association ñoom nag la ñu bëgg moo di rek ñu amal élection présidentielle foofee ca diwaanu Mali ak itam ñi nga xamee ni ñoom ñoo nekk ca transition ba seen nguur waroon a jeex nag ci ñaar fukki fan ak ci nag ñoom nag ñoo toogoon ca bopp réew ma ci atum 2020 ba léegi ñu daal di nag xaatim ñaar ay communiqué yoo xamee ni fësal nañu ko ci ay dimanche ji ñoom parti politique yi association ak itam réseau bi nga xamee ni moom moo ëmb lépp luy xeex àq ak yelleefu doomu aadama rawatina ca diwaanu Mali ñoom nag la ñu xamle moo di rek durée ba ñu joxoon transition bi jeex na ci ñaar fan ak juróom-benn ci weeru mars bi ñu génn njiital kuréel gi li nga xam mooy xeex ak ak yelleefu doomu aadama yeewoo ca diwaanu Mali daal na dikkaat nag ne faaw ñu li nga xam ne ni moom moo di yoon wàllum constitution bi ndax jamono ji seenub réew ma ngay jànkoonteeg ay jafe-jafe yu métti te ñi nga xam ni ñoom ñoo féete ca transition ba noppiwuñu ngir daal di saafara yooyee jafe-jafe tax na nag ñu bëgg génn ci lëndëm googu nga xam ni moom la ñu nekk te di ñaax transition ba ngir nag ñu delloo leen seenu réew ndax nag li ñu leen jagleeloon jeex na ca ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars bi ñu génn. réewum Éthiopie nag jël dogal delloo li nga xamee ni moom moo tolloog juróom-ñaar fukki junni doomi aadama yi nga xamee ni dañoo bàyyeekoo woon ci yeneen i réew ñu coincé nag foofee ci Arabie Saoudite mu nekk nag programme boo xamee ni mooy ñetteel programme yi ginnaaw bu ñu jëlee ab dogal ci atum 2018 euh, ci weeru mars atum 2022 Addis Abeba moom nag dafa xaatimoon ab accord ak ki li nga xam ni moom moo Riyad ngir nag delloo lu tolloo ko du ak euh, éthiopien mu nekk nag accord boo xam ne ni daan nañu ko amal ginnaaw bi ñu leen doon joxoñ baaraam rek ne dañu doon salfaañe àq ak yelleefu doomu aadama yi rawatina ñi nga xam ne ni ñoom ñoo bàyyeeko woon yeneen di réew ñëw di liggéey ci réew moomee nañu fàttali nag moo di réewum Éthiopie daanaka day dalal lu tolloog juróom-ñeent fukki junni réfugié at mu jot yuy bàyyeekoo ci yeneen i réew jëf mbokk yi lii léeg mooy li fi ruusoon ci ay xibaar ñu ne ko yoon jotal li seen télévision TV Saloum di leen bu baax a baax si topp bi ak teewlu bi waaye tamit di jaajëfal bu baax ñu jàpp ci liggéey bi ba ngeen mën ñoo gis ak it mën ñoo dégg ci anam yi mucc ay rédaction bu télévision TV Saloum di leen ñaanal anam jàmm waaye tamit ñaax ngeen di wéy di ànd ak programme